le candidat de la raison un candidat de la raison mooy koo xamante ni appareil bi mën nañ ko accompagner parce que nee naa la ñun objectif bu ñu am mooy se conserver la appareil parce que appareil mooy accompagner candidat su appareil ba baaxul candidat ba dara du ko doon donc candidat bi ñuy mënti am au de la coalition Benno Bokk Yaakaar c'est wax nga ko unanimité mënul am fépp. mais nous travaillons pour qu'on ait une unité parce que bu leen fàtte les déclarations du du chef de l'État mi ngi ko jëlee France Paris ñëw indiwaat ko Sénégal booloo leen unité soyons ensemble. bennoo leen bennoo leen ngeen nekk benn àndandoo parce que l'objectif final dans tout ce que nous disons nous à la coalition Benno Bokk c'est quoi est-ce que c'est perdre de pouvoir. non l'objectif c'est de conserver le pouvoir Vous pouvez le conserver. Et pour vous conserver le, pouvoir, pour conserver le pouvoir, il faut que ñu téye appareil bi qu'on soit ensemble et unis autour d'un appareil. Face à cette opposition. xam nga divisé man ma am bëgg-bëgg yow nga am bëgg-bëgg Kade Kajoor am bëgg-bëgg ñun ñëpp ce que nous voulons mooy ñu conserver le pouvoir hériter le legs de Macky mooy conserver la pouvoir. su nekkee ñun ñëpp dañoo bëgg con dem nekk président de la République pour conserver le pouvoir te ñoo nekk benn bopp. continuer dans cette lancée là su nekkee nag dañoo tasaaroo objectif bi ñu am on l'aura pas si le PS sort il n'aura PS doit am objectif conserver le pouvoir si d'autres sortent du ñu am objectif conserver le pouvoir parce que nañu def suñu xel ni en tant que coalition Benno Bokk Yaakaar benn objectif la ñu am mooy conserver le pouvoir et continuer les li nga xam ni entamé nañ ko pour sénégalais yi point. ok